dañoo bëggoon xam lan moo waral daje bi ci yoon bi fii comme euh, yaa ko jiite te nga woote woon ko yaakaar naa ñëpp wuy si nañ la ci ni nga ko bëggee ñu bëggoon xam aussi ñaata dëkk ñoo fi wuy si fii nii yi nga xamante ne yoon bi nga soxla woon pour ñu jubbanti ko nu mu toll daal. dëgg la mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi di nuyu ku ci nekk ci ak santam yàlla ak yonent bi di defar yoon bi moo ñu tax a jóg hmm. ndax li nga xam ne yoon bi dafa yàqoon hmm. bi mu yàqoon a ñu seet xam ne gouvernement bi bu nañ buñ ko négee duñ dañ danañ tardé <laughs> ñu jógal suñu bopp ndimbal na ci fekk loxol borom Mmh. Mmh. ne yoonu yoonu diggante sañca Mañang mmh. ba Koungheul dañ ko defee bi ñu paree nag bi mu nee naa def communication ni dëkk yi ñu woo mooy Lobène lañ njëkk a woo tekki sañca Mañang Jeeraan muy Joal Njaayeen Caareen Pal Kasaas te yaakaar naa ñëpp ñëw nañ ci liggéey bi jaar na ci yoon sant naa leen gërëm naa leen man nag duuma defuma ci dara maag rek laa maa ngi fii taxaw ci ba léegi defuma dara mais mbooloo mii daje fi sant naa gërëm naa leen yàlla yàlla yokk seen kattan yàlla wéral leen yaakaar naa yaakaar naa li daje euh, lenn la ci ay chauffeur ak i daal sama gis-gis ah ak ñaata oto fii nii yi nga xamante ni seen i borom dañoo xëy rek dagg seen i yitte ànd ak euh, yi yaakaar na déggoo mëntu weesu loolu loolu moom lool nga ciy rafetlu ak loo ciy yokk rek oto yi bu baax a baax ndax nit ñi mhm. oto yi leen mhm. te it xeer yi nga ñu doon sakkee pax yi mhm. oto yi leen oto yi mat dañ ñeenti oto ñu ngi fii tax taxaw ci hmm. suba léegi defuñ dara ñu ngi ci taxaw ci liggéey yoon hmm. lii nag dara defu ko lu mooy ànd ak ànd hmm. ànd moo man lii lépp mbooloo buñ matee léegi téeméeri nit ànduñ ñeent ñoo ànd ñoo leen mag kon nag lii mooy ànd gi ñun bëriwuñ mais ànd nañ yoon bi def nañ ko ci yoon wasalaam jërëjëf yàlla yàlla fay def maa ni bari yëre jot lii nii ci Assane a ngi ne a ba kan ñu ngi ah. ah. kon ñeen na leen gërëm lii rek la bokk mën a mën a am bu ñu bu ñu ànd ci leneen lépp bu ñu jógee nu ñëpp jox kon ñu ngi leen di ñëpp di gërëm. Ah, Baye Assane sant sa sa kàddu. borom borom oto yi nag ñu ngi leen sant di leen gërëm ndax mënoon nañu ñëwee seen loxo yi neen waaye ñëw ñëw kon ñu ngi sant borom oto yi yëpp di leen gërëm ñu ngi ko dalee ci Thiam wala Bakar ci Boubacar kan Youssoufa Youssou ñu ngi sant di leen gërëm ci yéen ci sa oto yi taw jërëjëf ñu sant di leen gërëm